bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax ci weeru tedd yi ñu nekk di weeru gàmm di weeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen ci ndokkeel di ci ndokkeel mboolem jullit yépp rawatina ñi féete fii ñu nekk di Argentine di leen nuyu waa Touba Argentine TV di lu seenu liggéey ci mboolem yëngu-yëngu yi nga xam ne mi ngi xew moo xam ci diine ji la walla ci lu dul diine lépp lu ci ne da ngeen ca taxaw taxawin wa gën a mat taxawin wa gën a rafet kon ñu ngi koy rafetlu bu baax di leen ci ñaanal ngeen dëppoo ci ak tawféex ndax tawféex mooy lépp tey ji nag ñuy am mbégte lool ndax yàlla dogal na daaw naga ni ñu toogoon fi amoon ab jotaay boo xam ni mu ngi aju woon ci bis bu mag bi nga xam ni moo dëgmal di guddik yonent bi alayhi salaatu nga xam ni lépp lu suñ borom bind jëmmam joojee moo tax ni ko Seexul Xadim waxe ni moom lépp lu yàlla bind ci ak mbaaxam ak ci ngëneelam ak ci darajaam moo tax suñ boroom bind ko muy mbindeef moo xam ni kawe na mbindeef yépp ñu ko waxee ni maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi mugayyabatan fal taqra an nañ najmi mu ni daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu jafee xam la waaye nag boo ci bëggee xam tuuti na nga jàng suratu najmi ndax ci riñaan bi ku dem ba janloog boroomam loolu maqaama yu kawe la wan nañ mi isa hawa ma dalla saaxibakum wa ma xawa wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyu yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqi al-a'la summa danaa fatadalla fa kaana xaaba xawsayni aw adnaa fa awhaa ilaa abdihi maa awhaa maa kadaba al-fuaadu maa ra'aa afatumaaruunahu alaa maa yaraa wa laqad ra'aahu naslatan uxraa inda sidratil muntahaa indahaa jannatul ma'waa is yaxsa sidrata maa yaxsa maa saaxal basaru wa maa taxa laqad min ayaati rabbihil kubra te loolu moo taxoon sëriñ bi di wax imaamul Buseyri it wax na lu ni mel ni fi nga ne ci ak kawe benn yonante nekku fa kenn fekku la fa ndax day mel ni asamaan si rek euh, benn asamaan su mën a sutanteeg moom amul kay fa tarxaa ruqayikal anbiyaau yaa sama an maa taawalat haa u lam yusawuka fi ulaaka wa xadd haala sanam minka dunahum wa sanaaw nee na ko fi nga ne am na ay baaraas ak i kiiraay yu yu bari yu dox sa digganteeg yeneen yonent yi ak anbiya yi euh, kon euh, euh, innama mathalu sifaatuka linnaasi kama mathala nujumul maau dafa dafa wax ni ni ma la mën a misaale sa digg ak ñoom sax dafa mel ni yow yaay asamaan si bu ko defee ki ne ci dex gi mu mel ni ci biir dex gi am ay biddiw yu yu tappe ci biir loolu yi ngay gis ci ndox mi di moo xam ab làmp la wala ay biddiw nee na nuñ soriyantee sa digg ak ñoom noonu lañ soriyantee dañ fay ñëwoon rek di la di la di la di la xajal di la xallal euh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu tedd bu mag boobu yi nag ku ne xam ne ni guddi gi nga xam ni moom lañ jublu si muy guddi gàmm maggal ko sunna la màggal ko farata la ci képp koo xam ni ab jullin nga waaye rawatina képp koo xam ni taalibeb Serigne Touba nga ndax Serigne Touba dafa am fu mu tegoon gàmmu jaral bañoon na ko ba waxoon na ni man sama guddi yëpp gàmm la sama bis yëpp gàmm la sama weer yëpp gàmm la ndax boo xoolee jës bu ak mawaayi bu muqaddimaat miimiya yooyu yëpp gàmm gi moo taxoon mu way ko kon képp koo xam ni yaa ngi noyyee sëriñ bi wala sax yaa ngi tuddoo sëriñ bi war ngaa waajal bu baax guddi googu ndax dafa waxoon ni képp koo xam ni dundal nga guddi gi nga xam ni mooy guddi gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mel nga ni ku fekk mbooleem xare yi yonent bi daa daa xare boo xoolee lu ci mel ni bayit wi nekk ci jësbul xulóob ni euh, mawliduhu muazzamu mubarakan muhtaramu tansimuhu yanatimu ala sawi taxaddumi nee na guddi gi wala juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam guddi gu màgg la guddi gu tedd la képp koo xam ni yàlla jiital na la nga jiita mbooloo war ngaa farlu ci ànd ak ñoom ñu dundal ko dañuy wax ni Seydina Omar wala Seydina wala wala Abu Jahlin dafa am benn saxaabi bu gént laaj ko mbiram mu ne ko man dey maa ngi sawara waaye nag guddi gi nga xam ne alayhi salaatu wasalaam gane gane na àddina saa yu agsee dañ may woyofal samay mettital ndax bi mu ganee àddina dafa am sama benn jàmm boo xam ne dama béggoon ba goreel ko ndax bokkum yonent bi alayhi salaatu wasalaam la euh, abu lahab ku ne xam na ku ku ku sonaloon alayhi salaatu wasalaam la tabbat yadaa abi lahab wa tabba ma agna anhu maaluhu wa ma kasab sa yasla naaran saata lahab wa mraatuhu xammaalatul xatab fi jiidiha xablum min masad moom la muy kàccoore kàccoore bu bis bi agsee sunu borom dana woyefal ci kawam euh, mboolem tartarya ngir dundal gi mu ko dundal kon képp koo xam ne ab taalibeb Seexul Xadim nga war ngaa euh, góorgóorlu wala képp koo xam ne ab jullit nga war ngaa farlu dundal ko ci noonu ma ko waxee ci ci sunna ngir sagam sunu borom woyofalal na ak yéefar mettitam mu wax ni fa kullu man anfaxa fi mawlidihil musharrafi maalan bi xayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman xadar yowma hunaynin wa sabar wa ma badrin wa nasar xayrul waral mufahami nee na képp koo xam ni dundal nga guddi gii danga cee dépassé sa alal moo xam benn dërëm la lum néew néew nee sunu borom day ci ak mbaaxam ak ci yërmandeem ak yaatoom ak bëgg nit ñi mucc nee na suñ boroom ak fonk gi fonk yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na suñ borom dana la musal ci mboolem loria dana jël mboolem garaad yi it jox la ko mel ni ñi nga xam ni dañoo fekkewoon woon xasawaat yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam xeex lu mel ni xuneyn ku ne xam na ni xareb xuneyn xare bu metti la woon ndax booba jullit ñi dañoo demoon ba ci am ñoo xam ne dañoo naw seen bopp ndax badar ñetti téeméer ak fukk ak ñett lañ woon attaqué daanaka ñetti junni nit man leen wane buñ demaatee revanche nag xunee ni ñu xaw a naw seen bopp xaw a gis seen bopp ci yëf yi suñu borom nattu leen ñu engagé leen ba ñu ci bari ci jullit ñi dañoo arrière waaw kon euh, wa yawma hunaynin iz a'jabatkum kasratukum falam falam tughni ankum shay'an wa daaxat alaykum al ardu bima rahubat summa walaytum mudbirin wilaayatul idbaar nag mooy daw nga xam ni keroog yàlla daf leen a nattoo man leen bañ gañe Sëñ Tuubaa nag nee képp koo xam ne dundal nga guddi gi mel nga ni ku fekke xare ba ba noppi bokk woon ca ña daw yaa nga bokkoon ci ñi nga xam ni dañoo àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam dimbali ko ca xeex ba képp ku màggal guddi gi ak badar ku ne xam na ni badar yonent bi nee na képp koo xam ne yàlla dimbali na la ba nga fekke badar nee na mucc nga fa man euh, fa laa yadxulu naara man shahida badra nee na képp koo xam ne fekk nga badar loo tabbi sawara te ku ne xam na ni sawara mooy li nga xam ni fa man zuhziha ani naar wa udxilal janna fa faaza ndax wa mal hayaatu dunya illa mataahul xuruur képp koo xam ne yàlla defal na la tawfiq ba ba nga mucc ci ci ci ci ba nga mucc ci sawara mucc nga ndax àdduna gi xéewal goo fi mën a am ak lu mu rëy ak nu mu toll daanaka du dara ndax bépp bànneex njëkk àjjana du bànneex waaye bépp njëkk njëkk ginnaaw sawara sawa boo xam ne sawara rek a ci topp du bànneex waaye bépp mettit ak lu metti metti lu mu tar-tar ginnaaw àjjana topp ca loola du mettit kon loolu war naa tax képp koo xam ne ak jullit nga kon nga dundal guddi gi jàllaat na ca biir wax ci lu yaatoo yaatoo yaatu waaye bu ma ci bu ma ci leeralaatee tuuti damay ñëw leeral diggante sëriñ bi ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax képp koo xam ne ab taalibe nga di taalibe bi Sëriñ war ngaa xam ni euh, am nga devoir bu rëy rëy ci dundal guddi gi ndax fi ko sëñ bi topp euh, tegoon ak bëgg gum bëggoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax dañoo wax ni bëgg mooy li mën a musal ab jaam ci mboolem lor ji boo xoolee abi Moussa nee na dañoo wax yonent bi ni ko ar rajulu yuhibbul xawma walamma lam yalhaq bihim mu ni leen al mar'u maa man ahabba nit ku nekk ki bëgg lay lay lay lay àndal moom lay topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaatoon na ni xalaawatul iman suñu boroom dana ko mu dana ko ñamal ki nga xam ni daf ma bëgg kon ba tey nee nañ salaasun man na kunna bi wajada bihinna alawatul imaan nee na ñett ngi nii yoo xam ne képp koo xam ni sax nga ci képp koo xam ne yaa nga ca suñu borom dana la musal bànneexub ngëm gëm yàlla dafa am plaisir bu rëy rëy boo xam ne jullit ñi néew ko mos ku ko bëgg a mos nag nee na nanga ko làmb ci yi na ko xool ci yi ba jiitu mooy bi mahabbati habibihi sallallahu alayhi wa sallam nee na bokk na ci yooyu bëgg yonente bi alayhi salaatu wa salaam moo tax man kaana allaha wa rasuluhu ahabu ilayhi mimma siwahuma bokk na ci képp koo xam ne yàlla ak yonente bi ñoo la gënal lu dul ñoom kon loolu lu mat a bàyyi xel la Sëñ Tuubaa nee na buxtu bi hib bi hubbil muntaxaa bi kalimi min asasin li masasin bi xalimi nee na bëgg naa yonente bi alayhi salaatu wa salaam te loolu nee naa ko ci at yi nga xam ni liggéeyal naa ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ni ahba ah, ah, ahmaduna al muxtaaru xatxan lii ahab ahmaduna al muxtaari xatxan lii ahab min xalqi man huwa ilaahuna ahab nee na lépp lu yàlla bind yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ma ci gënal billaahi ahbabtu rasulallaahi alayhi xayru salawaatillaahi nee na maa ngi leen di waatal ci yàlla ni man yonent bi rek laa bëgg bëgg mu kudul yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ngeen ma ko seeral nee na loolu lu ma bu mu fekkee am na lenn lu may waat mooy bëgg gi ma bëgg yonente bi daal moom bëgg naa ngeen xam ni ku ma sopp la ku ma bëgg la te loolu maa ngi koy waat ci waxtu wu ne maa ngi koy waat fu ne muhammadun sinatu dunia wa lazatiha salla alayhi alladi salla alayhi alladi lbahrayni qad maraja nee na adduna li fiy rafet lépp li fiy taaru lépp nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam képp la laneen nekku fi nee lépp lu ngeen gis mu rafet ci adduna wala mu taaru fi wala mu baax fi wala mu sedd fi wala muy bànneex wala muy plaisir nee na yonente bi ci barke bi yonente bi ak ci mbaaxam la mboolem lii ngeen gis ci àddina mujisaat yi ngeen gis dañuy wax ne dañuy dañuy faram diggante karama ak istidraaj al karamatu wala sax al mujisa ak karama ak istidraaj al mujisa mooy li yàlla daa defal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku ne xam na ne yonente bi xaroon na weer wi yaqtarabat saa wan saqal xamar yonent bi wax la woon na fi mbëtt yonent bi ban ba mu gënee àdduna iwaanu kisran sadaa fiha wa xablu rafia samkun lahu fartafaa nax wa samal mukarrim yonent bi ba mu gënee àddina dañoo wax ni euh, mboolem pale yi ñu daan jaamu nga xam ni wala jaamukati xërëm yaag yooyu yëpp dafa mabboon jaam euh, pale boobu nga xam moom lañ daan moom la président bi de la république amee woon foofa dafa mabbu dégg nga iwaanu kisra man kaana fii euh, fii fi man kaana fii ummil xuraa makkata xayrul urami maa ngi jégalu man kaa kaana fii ummil xuraa makkata xayrul urami kon makka ak ummul xuraa sore na ñoom ñaar ku ci buñ demee bay mën a gisee ku ne xam na ni leerug yonent bi la kon mboolem karaama yooyu nga xam ni moo gisee yooyu la yàlla defaloon yonent bi yii ngeen di gis yépp ci leerug yonent bi la ku ne xam na ni euh, yonent bi rañaan na subhaana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiu albasir ci diggante su gàtt bi mu agsee am ñu ko weddi abou bakar ni ko yow day bu fekkee ni yaa ko wax rek gëm naa ko waxu ko sax waaye daf ni bu fekkee moo ko wax gëm naa ko ndax lu mu wax dëgg la ña ko doon weddi tey jii yàlla indil na leen ay firnde ndax léegi nga mën a déparé fii fii ak Sénégal 5000 kilomètres la 5000 kilomètres wala ëpp na ko sax océan Atlantique bi rek moo dox suñu diggante 5000 kilomètres bu ko nit doon dox wala gëléem dana am ay at ci yoon wi doog a àgg léegi da ngay da ngay ndékkee fii dem reeree ji Sénégal kon mboolem luñ mës a wax ci ay mujisa nit di ko weddi yàlla def na ko muy istidrajaat muy ak jéy jox ko nit ñi muy tubaab yi da ngay toog fii léegi nga jël sa téléphone nga woote directement ci appel boo xam ne vidéo la ngay gisanteeg ku nekk Sénégal loolu istidraja waaye yooyu yëpp ci leerug yonent bi ak ci mbaaxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko suñ borom bind ci la ko defe mboolem lii ngeen gis muy ay xarbaax muy nuru ay kimtaan du lenn lu dul mbaaxug yonent bi alayhi salaatu wasalaam akuk leeram te mooy li gën a néew ci mbirum yàlla kon euh, yonent bi day koo xam ni suñ borooma ko tànn tànnal ko barab tànnal ko xeet tànnal ko askan da koo tànn ca askan wa gën tànn ko ca xeet wa gën tànnaat ko ci biir néeg ba gën waaye moom ci boppam mu tànnaat ko muy xayrul basar loolu lépp bokk na ci ay ay ay bokk na ci li nga xam ni ay ay leçon la yoo xam ni nit ñi war nañ di ci di ci di ci tiire di ci jàngate ndax jikkoom dañuy wax ni jikko balaa moo ñëw suñ borom daf lay tànnal askan amul wenn askan donte sax am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne li ñuy wax amul teguñ ko fen yooyu wax yu yàqu la ndax dañuy wax ni am na yenn maamu yu ñuy tudd di ci tudd ab safaan wala yaasu billahi taala ñooñu ñu réer lañ ñu ñàkk xam lañ ñi ñuy wooyee alwahabiya yàlla na ma yàlla jégal nga xam ne gëmuñu tariixa ci ñooñu la ëppee yàlla nañu yàlla euh, jéggal waaye lu mën a xew mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa doon jëmm joo xam ni képp koo xam ni bëgg nga ko wala nga sopp ko suñ borom musal na la ci nax-naxi àddina musal na la ci nax-naxi sawara ndax seexul xadim dafa wax ni bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam rek mooy li nga xam ni mën naa musal ab jaam ci àddina mën naa musal ab jaam ci kon loolu daa mat bàyyi xel moo tax mu ni diini ibadatu ilahi naasi bu hubbi muxtaari bi hubbi muxtaarin min al unaasi nee na sama diine mooy bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam sama lislaam mooy bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam diini ya hubbullaahi ma hubbi rasul alayhi tasliimaahu ma kulli rasul waaw nee na sama diine mooy bëgg yàlla ak bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla na jàmm nekk ci moom ak xéewal ak mboolem yonente yi àgg na ba ci ni man bu ma feebaree wala ma am stress wala ma am benn problème lenn rek moo may faj mooy nga tudd turu yonente bi alayhi salaatu wasalaam sifaau jismi wa sifaau xalbi muhammadun salla alayhi rabbi su ma feebaree wala dara dal ma nee nee ma ne tuddal yonent bi rek nee na damay wér jërul nga may wutal docteur jërul nga may wutal médecin jërul nga may wut yóbbu fen nee ma neel Muhammad rek li ne woon ci man lépp ci ay tawat day dañ àgg na ci bani muhammadun sikruhu unsi wa mafrahati wa nuuru xalbi wa aadaa'i wa rahaati nee na bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam wala tudd yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy sama mbégte mooy sama bànneex sama cër loo nee na loolu moo koy dundal bëgg yonent bi alayhi salaatu sama lépp nee na bëgg yonent bi rek mooy li nga xam ne moo koy dundal moo may moo may moo banneexal waxaat ni euh, li ma neex ci sama jëmm ji lenn rek la mooy tudd gi ma tudd ahmadu nee na xaalam nu sayqihi allazi laa yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammadu nee na man li may sant yàlla ci sama jëmm ji du lenn du dara lu dul tudd gi ma tudd ahmad ahmadu haasa xaala inni ahmadu fa inna xayral qawli inni ahmadu nee na man mii di wax ak yéen ahmadu laa tudd te wax ji gën ci waxi mooy tudd ahmad kon kooku am na fu mu tolloon yonente bi alayhi salaatu wasalaam àgg na ci bi man xibbihi nasiitu layla wa sahaban wa fiddatan wa xayla nee na bëgg gi ma bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam tax na mënatumaa bëgg ma nee na tax na ma fàtte bëgg ay soxna tax na ma fàtte bëgg ay doom tax na ma fàtte bëgg wurus bëgg xaalis nun nit yi ordinaire yi li ñu yàlla nattoo nga xam ni moo te àgg ca yàlla mooy àdduna mooy bëggu dërëm bëgg doom ak bëgg e, àdduna nee na yii nii yi nga xam ni mooy gàll moonu gàllankoor bañ tee bëgg yàlla nee na yooyu yëpp suñ borom tax na ba bëgg gi ma bëgg yonante bi bëggatuma yooyu maanaam yooyu faleetuma ko kon ahmadu man saara nahaari layla bi hubbihi waqat ada al layla nee na yonante bi mooy sama guddi mooy sama bëkkëj mooy sama bëccëg nee na dana man sax damay màndi nee na dana àgg naa ci damay màndi comme naankatub sàngara ni naankati sàngara yi màndee laay màndee waaye man li may màndal mooy bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam sakirtu min xamri mahabbati nabi fala azalu fi sanaa bi mut ni bi nee na damay màndi ni nga xamee ni naankatub sàngara noonu lay màndee waaye li may màndal li may gëlëmal mooy bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax fu ma deñ duma ma deñ deñ di ko tagg ba mukk kon dem na ba àgg ci ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu ko nar a dal yàlla na ma dal lépp lu na nar a àgg ci yonente bi yàlla na agsi ci man ndax euh, àgg na ci ni samay waajur sax samay waajur fa daytuhu law kaana yufda bi abi nee na bu fekkee ni dara nar naa agsi ci kaw yonent bi yàlla na dal ci samay waajur te bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yonent bi bu bu fekkoon dafa nar a dox ak dël ak dëkk walla lancet walla jiit nar koo laal nee na loolee ko nar a laal na ko bàyyi te ma lal sama lex bi mu dal ci mu dal ci sama lex bi yonent bi na jóge ci sama kaw jàll kon bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam buñ koy xool dëgg-dëgg sëriñ bi moom la defoon ba ba gëlëm ci moo tax yonent bi feeñu ko defal ko lim ko defal kon nag képp koo xam ni eh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi ab jullit nga wala ab taalibe nga loolu war nga cee jàngate war nga cee war ngaa xool ni sëriñ bi moom moo njëkk doon ab taalibe ñëpp moo njëkk daanu ñëpp ndax boo gisee ay waxam dëgg-dëgg ba xam ba xam dayo bi mu fi mu tegoon yonent bi ak fi mu àggoon da nga xam ni nit mësu faa àgg waaye nag yonent bi alayhi salaam wasalaam defal na ko loo xam ne mosu koo defal nit ndax nee na bi may liggéeyal yàlla jëmbaliwu ko dara waaye bi mu may fay moom it jëmbaliwu ma dara kon loolu euh, mat naa bàyyi xel ci ak bëgg bëgg gi ñuy woote nit nag boo ko bëggee da ngay sax ca mu nekk ndax mënoo bëgg nit ba noppi nekk ci safaan déedéet euh, waykat ba da koy wax nee na euh, innal muhibba liman yuhibbu mutiyon nit ki lam kam bëgg day xool lam bëggoon mu nekk ca sëñ bi nag bëggutoon lu dul diine lislaam bëggutoon lu dul sunna su yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo taxoon ca la nekkoon ca la nekkuloo woon ñëpp kon wax na ni it mboolem li ma am lépp def naa ko addiyee yonente bi alayhi salaatu wasalaam jumlata maali wa midaadi wal xalam hadiyatun lil Mustafa baadi niam nee na mboolem li ma am ci ay alal lépp dara desew ci nee na jox def naa ko hadiya yonente bi alayhi salaatu wa juttu lahul yawma bi ruuhi wal badan wa walidi wa walidayya fil alam nee na samay ñaari waajur jël naa ko def ko addiyee yonente bi alayhi salaatu wasalaam li gën a foor ci doomu aadama mooy ay waajuram nee na loolu jël naa ko jox ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam habawtuhu bi xidmati wa nafsi min saaxati ilaahulul ramsi lakka lisaani mahal janaani wala udaani kas shuadaa yi kon mboolem daraja wala mboolem garaat wala mboolem lu nit di naw ci nit ci boppam ci jëmmi boppam ja wala nit di ko bëgg lépp da koo jël def ko haddiyee yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sama samay weer ak samay guddi ak samay bëccëg lépp jox naa la ko yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam habli nabi sanati wa sahri wa habluhu shirriiri dan wa jahri moo tax nee na mujj naa yonent bi limaale ma ci ay saxaabaam madaxtu rasulullahi xataa ka annani mahal ali wal ashaabi bil xalbi wal jismi nee na tagg naa yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba dama mujj di kenn ca saxaaba ya ñi àndoon ak moom nga xam ne da da dañuy toog ma toog kon guddi gi li nga ciy jàngate mooy sëriñ bi fi mu toll ci boroomam ak fi àgg ba noppi ñëw ci kanamu yonente bi jox ko léppam kon ananu ñun ñi nga xam ne dañuy woote woo ay taalibe ananu ñun ñi nga xam ne dañuy woote woo ay jullit ananu ñu ci war a taxawee taxawaay bi mooy li Sëriñ Tuubaa wax mooy ñu jël suñ lépp jël suñuy ruu jël suñu yaram jël suñ jëmm dara bañ a des bu guddi gi ñëwee bu ko suñ alal fekke bu ko suñ dara fekk bu ko suñu man fekk ndax buñ ko sàkkoo na nga xamee ni noonu la ko sëriñ bi jàngalee ci jës bu yàlla xam na ni mbooleem jafe-jafe yi doomu aadama yi di jàmbat ci dëkk bu naqari bii bu fekkee dëggal nañ suñ boroom dana saafara lépp ci barke guddi gi ndax euh, amul lu gën a féete kaw amul lu gën a rëy guddi gi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nit da nga dang-dangi dem cib sëriñ wala ngay dang-dangi fu ne nga dang-dangi dem fa di ñaan lu te li sa fajug aajo yaa ngi ko wan ginnaaw kon guddi gi sëñ Tuubaa waxoon na ni képp koo xam ni fonk nga ko suñ borom dina aar dégg nga dina la aaral sa kër dina la aaral sa njaboot wax na ko yaamil xiyaala wa duyuur fiihi shifaun li sudur li kulli haadin jant mi yaamil xiyaala wa duyuur nee na euh, maggal guddi gi dafay aar ak njaboot day aar ay waajur day aar doom day aar soxna day aar jarbaat day aar lépp ba mboolem tawat joo xam ni nit ki dana ko tawat ci ñoom dem docteur nga ciy financé alal ju bari dina loolu lépp màggal guddi gi dina la ci musal fii shifaa'un li sudur saafara dënn nag dara féetiwu ci kaw mooy ñàkk stress mooy ñàkk ay jafe-jafe nee ku koy màggal da ko ñàkk kon jafe-jafe yi ñuy am yépp te stress bu gën a metti yaakaar naa mooy ñàkk xaalis ndax doomu aadama daa bëgg xaalis ndax day faj lu baree bari kon buñ bu fekkee ni bëgg nañ caa mucc nañ màggal guddi bu buñ ko màggalee na mu waree rek te dëggal te teewe ko suñ borom mën naa faj suñu aajo dañuy tàmm ñun Sénégalais yi bu xew-xew amee wala événement am ñu ñëw daje coow waxtaan dégg nga euh, toog ca mbedd ma toog ca garam place waxtaan xamuñ lu ñu fi indi ab jullit bu fekkee da ngaa jug di dox farata xamal la la xamal la la tax a jug nga def ko te jug fa boo noppee dem defi leneen waaye nekk di nekk ci yeneen yoo xam ne amulu la benn njariñ mel ni ku ne. ci ci ci ci ci ci mbedd ma wala nga ne ci place yi nga xam ni wala xeesu billaahi loolu dafa ëpp def ku ñëw ba guddi gi daal na nga jël sa xasida nga di ko jàng soo mënta jàng xasida nga jël sa genn istixfaar nga di ko def wala nga jël sa genn salaatu ala nabi soo mënut yi yëpp nga toog di diglu ñiy jàng xasida ya ak di sikkar dégg nga nga déglu ndax muy murit muy tijaan kenn ku nekk am nga sa kuréel boo xam ni soo digloo la ñuy la ñuy jàng suñ Tuubaa dafa waxoon ni fa kullu fa kullu man xat ara xat ara mu bajjilan fa xabba a xayraati ahlil himami dafa wax ni e, fa surbu bil mutahari yekku fu dal marxami waaw kay loolu laa bëgg a wax ndox mi nga xamee ni ñiy jàng xasida walla ñiy wasifa wala ñiy sikkar nee na ndox moomu nga xam ni moom lañ jël jàng ba tifli ca nee na ndox moomee képp ku ca naan ndox ma laa la wax de nee képp ku ca naan suñu boroom dana la musal pexey iblis suñu boroom dana la musal ci lépp luy lore wax nañ ni sax mm, bu fekkee dafa ndox moomee dañ koo sotti ci gàncax ba gàncax ga sax aw nag lekk ca wala am xar nee nañ xar moomee ku lekk ca ndawal ga suñu boroom jéggal na la say bàkkaar yonent bi moo toll noonu moo àgg ci suñ fa fa mu ne kenn mënu koo xam ku dul boroomam boroomam bi ko bind fa kullu wasfin baliixin qiila fi rajulin fa anta saahibuhu yaa ayyuha rajul imaamul buseyri gis nga ba muy tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ca burdatul madia fa mablaxul ilmi fiihi annahu basarun dafa gag amutud lu mu wax yonente bi alayhi salaatu moo ko feeñu ni ko wa annahu xayru xalqillaahi kullihim boo bëggee noppalu yow buseyri neel yonente yi neel moo gën ñëpp noppalu ndax toog fii di nettali ay mbaaxam ak i jalooreem taxul nga jot dayob bu fekkoon asaka la taxul nga jot asaka ya kon yonente bi moo àgg sama borom foo xam ni bëgg ko mën naa musal ab jaam ci lu ne dafa am benn borom xam-xam bu mag dañ koo laaj ni ko benn waaye dafa ñëw ci moom ni ko man de damay ku ku ku xaw a sàggan ku dëng lu ne nag dama koy def lépp loo xalaat cib safaan dama koy def léegi nag dama bëgg nga wax ma benn jëf bu baax boo xam ne su ma ko defee suñ borom dana ma mën a musal mu ne ko bëggal ñu baax ñi soo bëggee ñu baax ñi ñu baax ñi yàlla bi bi set dana yër seeni xol su yëree seeni xol su la ca fekkee dana la jéggal segam bëgg ñu baax ñi mooy tax a mucc as sama ak bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax sëñ Tuubaa nii nee na man sama lépp du dara lu bëgg yonent bi lu ma am moo ma ko may billaahi ahbabtu rasulillahi maa ngi leen di waatal ci yàlla ni man bëgguma lu dul yonente bi alayhi salaatu am na bis boo xam ni dañuy dégg ñu ni sëñ bi day jëfandikoo guro ci mi am ñu ñëw yanu guro guro gu bari andil ko ko benn taalibe dégg ko bi ko sëñ bi yëgee daan ni dafa dafa tàng jër ni lépp luy guro ci kër gi nañ ma ko génneel te bu ma kenn andaleetu guro man bëgguma lu dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon nag maa ngi laabiram mboolem taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi di ma déglu di dégg sunu kàddu nañ nañ fu waay mën a nekk ak loo mën a jàpp ndax wa tax saw na kasaadaha euh, jàngoon nañ ci suratul jumaa euh, wa isaara aw tijaratan aw lahwanin faddu ilayha wa tarakuuka xaa'ima xul maa inda llaahi xayru min allahwi wa min attijaara wallahu xayru raziqin bi bi ñuy doog a sos lislaam julli ñi dañ daan julli ci ginnaaw yonente bi suñ déggee ñu ni feria sàngam ma ngay dox rek ñu daw bàyyi ko fa yonent bi daan asalaamaaleykum geesu du gis kenn ci ginnaawam loolu tax na yàlla ni leen yéen day bis bu ngeen jullee bis nii ngeen di def day am na lu ko gën saa yu ngeen gisee yonent bi di julli bu ngeen déggee marchandise ngeen daw bàyyi ko fa li li fa yàlla dey moo gën moo gënum po moo gën commerce ndax diggante su gàtt la ndax diggante su gàtt la guddi yi ñaata la 365 jours génn guddi la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam am loo mën a naan loo mën a mën nelaw loo bëgg-bëgg xaalis dégg nga loo tëradi tëradi wax dëgg yàlla war ngaa mën a bàyyi lépp dem ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam guddeem gi te kenn ku nekk bu fekkee da ngay woote ak bëgg sab xarit bu fekkoon dafa am ngénte walla mu am ab dëj wala mu am bis boo geesoo ñu nga gën a jàpp ngay ngay gis koo ca gisut jaral na la nga bàyyi ko ci kon nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu wootee bu soxlaa ku mën a soxla keneen ku mën a doon na ñàkk Sëñ Tuubaa ci njëriñ ni mu ko daan gàmmoo dafa daan yenu bool ya di xelli kafe ya di ko séddale jàngkat ya loolu noonu la daan def moom ci boppam sëriñ bi da daan daanu jël wax nañ ni am na eh, bis boo xam ni dafa dégg ñuy jàng di jàng mu woo sëñ Masamba ni ko Masamba ñoo ñuy jàng day nii leen yàlla bëgg na ci ñoom mu ñëwaat mu ne nee leen yonent bi bëgg bëgg na ci ñoom mu ñëwaat mu ne ko nee leen bu leen neexee ak bu leen neexul danañ dem àjjana kon képp koo xam ne ab taalibe nga foofu nga war a nekk ba tey njëriñ am na gàmm goo xam ni wax nañ ni soxna si ci boppam dafa réer bañ jël rajo bi di ko fa laaj ngir lan mooy mbooloo mu bari ma ak xat-xat ya sëriñ bi gàmm la mos a woote ci mbooloo màggal da ciy sant yàlla waaye gàmm mooy bis bi nga xam ni fonkoon na ko ah yeytu mawlidan nabi min asasi ndax boo xoolee euh, soxna maam asawaalo mi nga xam ni mooy wayjuru soxna jaara mariama buso mooy maami sëriñ bi téeméeri at dund na ko dafa doonoon ku yàlla may mu mu nekkoon jàngalekatam alxuraan bari na ñoo xam ne moom mu leen jàngal sëñ Moussa Ka wax na ko nee na soxna sa fóore la da yére ya di tëralal dong la mboolem téere ya soxna maam astawaalo moom yi sëriñ bi moo ko bindaloon xasi sindiidi gi yallaahu bil mustafa sindiidi yallaahu wa bi xalilika ibrahima yallaahu wa bi kalimika muusa saalihan xadirin wa bi suaybin wa ismaila yallaahu wa bi nekkutoon sax bil mustafa mi ngi nekkoon yallaahu bil mustafa al mahbubi yallaahu sëñ bi da koo soppi bi ko sëñ bi taalif booba ñaar fukki te booba gàmmu rek moo taxoon mu taalif ko kon képp ku jullit bu fekkee ñooñu ngay roy war ngaa jéem a góorlu ba loolu bañ laa roy boo dee am murit xoolal ci sëñ bi boo dee ab tiijaan xoolal eh, Cheikh Sidil Hadji Malick si moom itam gis ngeen ay taxawaayam ci gàmm moom itam itte ju nit itte lu mu rëy rëy rëy rëy wax nañ ni bu ko waaye musaa def bisu gàmm da daan da daan bind ay leetar yu bari yónnee ko ci ci kaso yooyu pour ñu jéggal ña fa nekk pour ñu bàyyi leen pour ñu libéré leen ndax nee na guddi gi ñëpp dañu leen wala libéré kon guddi googu nga xam ni nit yàlla yi yi yi fi nekk yëpp dañuy jël seen seen i engagement ngir musal jaam ñi ku ne xam na ni kuy musale ci àddina àllaaxira waxi noppi ñoom pare nañ ci lépp ndax gis nañ lépp suñ borom wan na leen lépp ndax suñ borom da leen a kas kon képp koo xam ne ab murit nga tiijaan ñaseen xaadir nga xam ni yow gëm nga tasawuf ñoo ñoo ñoo tax may wax ñi gëmul tasawuf taxuñ may wax waaye ñooñi war nañoo góorgóorlu war nañoo farlu ba am ci mbégte war a bokk ci kuréelu yonente bi alayhi salaatu wasalaam boobee nga xam ne ñoom lañuy ñuy tudd badar xonee ni ndax lu nit ki pertoon ci ak dundam lu nit ki ñàkkoon ci dundam mën na koo dabaatal ci guddi gi guddi paramation la goo xam ni loo defoon ci ci bàkkaar lu mu rëy rëy rëy ak bu mu mën a doon soo teewee yàlla jégal la ko inna allaha yaxfiru sunuba jamian yàlla bàkkaar yépp lay jégale waaye guddi gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo agsiwaatee danga mel ni ab liir buy doog a judduwaat bu ko defee zéro ngay waat te it doo ci yam ba noppi dañu lay duyaat ba nga fees dell ba mel ni saxaaba ya maanaam dañ lay raxas ba nga mel ni liir buy doog a juddu ñu duyaat la ba nga mel ni saxaaba yi àndoon ak yonent bi alayhi salaatu ko guddi goo xam ne ku ko fekkee mel nga ni ku fekkee badar ku ko fekkewul perte nga ku ko fekkewul ñakk nga ku ko fekkewul texeede nga ku ko fekkewul ñàkk nga sans ku ko fekkewul amoo muur ku fe ko fekkewul texe texeede nga ci lu ngant nag ndax badar boo xoolee am na benn saxaabi yu boo xam ni dafa defoon njuumte lu rëy Seydina Omar ni damay dagg baatam yonente bi ni ko yow xanaa xamoo ni kii dafa fekke woon dafa bokkoon ci ñi fekkee badar te yàlla bind na ci lawhul mahfuus ni badar képp koo xam ne fekke nga ko fekkee nga ko loo defati suñ borom jéggal na la ko yàlla toppatoo la dara suñ borom baa yàlla na la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu